ko ah, mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet lu tv point com ñu ngi leen di di leen ziar tey nekk nekk premier jour koor gi ñu njëkk see dalal ki nga xamante ne mooy Yékini Junior def ak moom interview ñu ñëw fii fekk ko fi di muy préparé xaw ma day préparé xaw ma dañ koo dee dara xaw ma deewuñu ko dara di leen wax ne nag boo ba léegi ñu ngi koy topp mënuñu ko am fenn yaakaar naa ni raar na ngeen gis Yékini Junior ci benn site internet mu def interview tey nag yàlla dogal na nangul nañu ko ñu fekk ko fi fas yéen waxtaan ak moom ci carrière làmbam parce que gën nañ ko gis dëpp kombaam ak Tafatine boobu ba léegi mënul am combat mu nekkoon 1er janvier 2018 Yékini Junior dafa bàyyi bëre wala promoteur yi ñoo ñoo ñoo ñoo soowul ci Yékini Junior wala Yékini Junior moom léegi dafa bëgg nekk rek di taamu xëy na nag taamu bu bari la parce que mbëri dañoo mën a taamu. loolu yëpp moom moo koy leeral dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi suivre le tv ñu waxtaan ak moom junior nuyu naa Lamine maa lay fay di nuyu seen suñu mbokk yi ñu seetaan ci internet bi di profito di euh, ziar ñëpp di leen baal àq te di leen baalu àq di nuyu képp kuy seetaan Lutte TV parce que dëgg la gëj naa génn mais nag xam nga yéen moom samay nit ngeen te yàgg nañ du dëgg bu ngeen ma seetsee ñëw pour ñuy waxtaan dinaa ci sawar donc na loolu moo waral suñu waxtaanu tey de profil du nuyu ñëpp ku ñu képp ku ñu seetaan nag képp ku ñu seetaan li TV. waaw euh, léegi laa jot benn nouvelle sax di dégg ni Cheikh Béthio dafa nelaw di ci profité di ci jaale ay mbokkam yëpp di ko jaale waa Sénégal mu nekk nouvelle bu tiis nag waaw. tey mu nekk premier jour koor gi Yékini Junior ngay entraîné est-ce que woor nga. waaw woor naa parce que d'habitude man moom laa mos a même koor après koor avant lépp dama lay entraîné xamee ma oo koor ak ñàkk woor donc nag si samay ent si liggéey laa nekk pour man ci suma bureau laa nekk rek waaw. raar na mbër yow mbër yi nga bokkal catégorie raar na ci ñuy gis mbër di entraîné semaine bi yëpp muy entraîné cinq jours sur sept lan moo waral Yékini Junior nekk di entraîné te boobu ba léegi wala dafa jot ay proposition non comme ñëpp rek boo xoolee année bi dara daanaka doxul mais nag bu doxul warul tax nga toog man maa nekk mbër. donc damay liggéey su ma demee ba bëreetuma nag ma xam ne bëreetuma ma bàyyi liggéey mais fii maa ngi ci biir làmb ji damay liggéey waaw. Yékini Junior ñaata combat la bëre man xàmmatuma ñaata combat bëri na de est-ce que bëriwuma 23 combat yaa na 23 24 yooyu de. 24 combat nga bëri. waaw ñaata defar nga si cinq am de 19 victoire. waaw ba pare Yékini Junior mënatul àgg fi mu war a egg Yékini koy xaar fi ñu xaar Balla Gaye fi ñu xaar Modou Lo fi ñu xaar Lac de Guiers numéro 2 ndax yaakaar naa ne yow presque yow ak ñooñu yéen a démarré ndoo ku mel ni Balla Gaye ak Lac de waaw waaw parce que tey li ma daloon ci moment boobu moo ma dal ba tey problème adversaire parce que gars bëgguñu koy liggéey mu leer leen ni ci mën na bëri mën a dóor donc nag bu fekkee ni gis nañ ku mel noonu de ko seetlu pour kooku mën a bëre day jafe booy xool chaque jour saa yu may jël damay jël koo xam ni dama ko jiitu ooy laa dañ naan man maa su ma daanee nag coow lu bëri su ma ko daanee ñu ne tekk problème adversaire la Yékini Junior problème adversaire adversaire de taille adversaire yu ma war a bëreel waaw. bëri nga ñaata combat amoo defet bi ngay soog a dugg si làmb. def naa ah. fois benn benn waaw benn année laa tegale teg si trois fa la affaire bi commencé ma demaat tegaat yeneen cinq daan ko daa daan wàcc benn demaat tegaat yeneen ñaar daan ko ñëwaat daan wàcc donc nag loolu mooy carrière bu xaw a metti bi. amoon carrière bu métti a métti ci sa carrière comme ni nga ko waxee sànq bi defee neuf combats neuf victoire nga dugg ci CLAF Gaston 2006 yaakaar naa ne sa premier combat yaa ngi ko woon jour Balla Diouf ak Bac Seras nekk 10 la su ma juumul 2006 nga bëre kan Lac de wala Tapha Tine. waaw mu daan la. waaw sa prochain combat ba nga bëre kan. Issa Pouye. troisième combat nga bëre. Ah, a Tine. mu nekk 4 3 défaites. waaw ah, parce naa tegale naa ay 9 ay années. mais at boobu dafa metti woon trop. noo ko dundee trois défaites bon comme comme adversaire yi comme athlète nu muy dundee défaite rek moment bu ñëwee di metti day metti parce que moment la yoo xam ni doo mën a wax lépp physiquement doo mën a wax lépp tamit donc nag da nga koy da koy assumer après nga avance parce que c'est la loi des du métier mhm, y a des hauts et des bas. ñu ne Yékini Junior buy bëree ak adversaire bi day ñëw di ko imposer doole. combat yooyu yëpp ñu xoolee sa diggante ak Lac de Guiers ngaa ñëw di xeex ak moom ñëw di ko forcer yaakaar naa dalaa kal sax nga nga jaaxaan. Ah, gazon bi la rek boobu ci gazon lañ doon bëree. dalaa kal boo bëree premier combat ci gazon am ci defeet yeneen da ngay calculer de trop loolu moo sonaloon. kalu la nga daan. kal ma teg benn paa ñaar mu teg ma loolu du kal loolu bu doon suuf la du ma carré du ma du ma du ma daanu. Hmm. non non. kon boobu. lu ci la mais nangu naa ko mais mën nañ tase jiwaat. Souban na la wane du defet. Ah, ni ma ko super étoile moo gën a yomb ni ma daanee kooku ni ma daanee parce que génn nañ bu yàgg man ma taxaw ci saako yi mu continuer waaw bëgguma di ñëwaat ci yooyu parce que na. ñu leeral ci parce que tamit yéeg da ngaa raar da ngaa raar yow kenn ñu waxtaan ci loolu troisième combat bi nga bëri ak moom amul gazon. amul ginnaaw saako yi amul supérette. waaw ma bëri erreur mu daan ma c'est normal. daan la jël bu rëy yaxey Jóob Yékini waajal la ni da ngay dem États-Unis nga dem def fa ñaata mois. yaxey Jóob Yékini waajal ma dem ne damay dem États-Unis. Ah, comme ni mu ko waxee woon comme ni mu ko waxee woon. non non dafa jeex ñu préparé waat jeex na préparé waat ñëwaat génnaat ci. bokkaat ci claf suma juum. waaw. bëri fa quatre combats. génnaat ci final waaw. Elton daan waaw. combat bu métti baa ngi noonu nag xam nga boobu fan sax fàtte woon naa ko sa combat ak Tonnerre Yékini Junior xeexoo bëriwoo. kenn du wax lépp mais jeex na. est nga mbër dóor la dóoru métti. déedéet xaaral nit di nga ko mën fuuf mu daan la tu dëgg. non a woon Tonnerre. déggul ma nit di nga ko mën fuuf mu daan la. jeex na loolu du may avancé. comme nit tamit mën na la mën daan la. mën na la mën daan la mais tamit man gëm naa foofu nit di nga ko mën fuuf mu daan la. jàpp nga ne tonnerre bi mu lay daan yaa mënoon. gëm na man gëm naa gëm naa ne di nga ko mën mu daan la waaw. métti woon na defet boobu est-ce que gënul métti ci sa carrière. defet benn neexul. mais di nga am defet boo xamante ne. tant que fay wóodu la. jom benn defet neexul xaw ma na nga ñàkk jom naan bii moo daax ak bii daaxul nga jógee ci tonnerre yaakaar naa sant nga bëre. daan ko waaw. nga jël moo daan. daan ko waaw ñëw tafaatin daan waaw carrière sama carrière ku fa jaar da ngay bàyyi. fu ma jaar fu fa jaar da bàyyi. bàyyi lan mais courage moo may indi chaque jour. courage. parce dama gëm dama gëm ni damay liggéey te dama gëm naa li ma mën gëm naa samay adversaire gëm naa ni samay samay samay potentiel gëm naa ko donk nag mënu ma nekk di dute sama bopp duma ma dute damay gëm nii dama li ma mën mën naa ko te dafay ñëw. ma la laajoon Yékini fan nga bokk ci làmb. ñun ñooy say morom yow lan nga may wax lan nga jàpp. no du ma tudd tur bokk du ma ko wax athlète laa comme athlète yëpp. waxuma ñeen nga bëgg a bëri fan nga bokk yow ñeen laa comme mbër yëpp fi ma bokk mooy fii roi des loolu laa teg sa man fa loolu laa jàpp. roi des arènes bokk moom da ngay bëree bëree daan bëree daanaat. fa laa teg sa mbër nag. ngi rêvé jël couronne. ah si rêvé fan gëm ko nga naan rêvé. gëm nga ni di nga nekk roi des. naa ko kay. lan moo lay may loolu. ah liggéey xanaa te ci nit bu nekkee ci dara da ngay gëm rek. nga bëri premier janvier 2018 sa diggante ak Tapha Tine boobu ba léegi mënoo am combat lan moo waral loolu. non boobu de yaakaar naa suma juumul élection yi jàll na fi donc promoteurs yi tëgguñu lu bari daanaka mbëri comme espoir yi door génn la ñuy gën di tëgg ma gëm ne nag problème sponsor yi ñuy wax tamit mi mi ngi mi ngi mi ngi pesé wu quoi donc foofu ma leen ciy wax ma leen ci lancé tamit ne leen ñëw nañu teg fi affaire fii fii fii problème bi nekk nañu fa teg seen loxo bañ ko jaarale mooy ñi jàppale sport nañ jàppale làmb parce que làmb ci dëkk bi la bokk ci Sénégal la bokk suñu sport national la donc bu ñu raay wax ji nañ ci nañ ko jaar mooy président de la république ak gouvernement am nañ ñu jàppale jàppale sport bu ñu ko jàppalee dina baax ndax jeunes yi am lu ñu def waaw ñi ngi jàppale sport nag nañ mais nañ ñu gën a jàppale surtout làmb. mais est-ce que ñoo ngi lay démarrer parce que tamit am na yeneen mbër yoo xamante ni bëri nañ. waaw depuis na ñoo xam ne bëri nañ am na ñoo bëriwuñ donc nag am na am na ñuy ñëw di wax des fois di dem bon mais dara taxawul du dëgg donc nag kon mënuñ jàpp ne dara taxaw na quoi donc li am solo rek mooy ñu nekk liggéey di xaar. combat yi ñu gën a wax ban ban la. non ah, taxawul yooyu taxawul ay wax la nii rek. sa combat kan lañ gën a wax promoteur yi kan ak kan lañ la démarché. non taxawul démarché nit day ñëw bëgg naa sa combat ne ko waaw mais après du avancé. sa combat ak Sa Thiès daaw wala daaw jéeg trois ans yéen moom la ñuy wax boobu ba léegi mënul taxaw. yaa ñemewul Sa Thiès wala Sa Thiès moo ñemewul Yékini Junior non bu wax loolu Sa Thiès dèjà du ma toog sax di insisté di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko wax parce que Sa Thiès daanaka fi ma jaar fi làmb toll la rek mais jaaragu fa mais man duma ma moytu adversaire parce que yaakaar naa fi mu jaar bu bëri faak Siteu jaar fa bëri faak kan Lagrose jaar fa bëri faak nees bon nees bëri naa moom daan naa ko yaakaar naa donc waroon na mu fu mën a jël bu fekkee ne dara amul mais nag doo insister ci benn affaire mais champion la comme champion yëpp na góorgóorlu xam nga def ni mu daan def kuñ ko jox mu jël mu avancer carrière am. parce que mos nañ la gis nga def benn sortie sax ni da ngay da ngay kontaan ci ku mel ni Sa Thiès ak parce que ñoom duñu moytu ay adversaire da nga jàpp ne moom dafa jóge ci logique bu mu nekkoon. waaw moom nekkoon na ci boobu mais daf ci jóge daf ci jóge parce que man du may laaj adversaire damay xool guerrier may wax ci say wax mais boo nekkul géré peut def leen du ma wax ci mais ay moment damay gis du xaar mooy moment yu bëri ak bay sëy moment yu bëri ak yenn kii day bëri avancé dem mais dernier temps dama gis muy calculer lu bari donc bu bëggoon bëri tey ji ci moom la descend. pourtant dafa mel nga tey la gën a nekk géré de te dafa mer sax moom instant bi. <laughs> mer ngeen kon man mer lan la. xanaa mer fanaanu mer takku la. <laughs> ah loolu moo xam naa moom moo ci xam dara. Mm-hmm. non li ma ci mën a wax rek mooy ku ma yàlla boole rek naa bëri moom. mais daal suuse siwu ma kenn waaw suuse siwu ma kenn. mais Sa Thiès ak bëre tam am ngemb doole bi bëri ba pare adver at moom arbitre su ak adversaire am rek day dal ci kaw adversaire am Sa Thiès Yékini Junior at bi génn seen diggante est-ce que Yékini Junior Sa Thiès. Sa Thiès dama xeex bi ñu xeexoon contre bi ñu xeexoon 2012. waaw ci boobu yaakaar naa boobu la moom mooy taw ba tey mais man garaawul na ñoo ñu bëre rek. laale woon ngeen fi teeru bi face à face kii. voilà waaw face à face wala yéegi yaakaar naa ci lañ jote woon ci lañ xaw ci la yaakaar naa ci lañ jote woon laale donc nag loolu passé na lii nag sport la bon man lu Sénégalais lu nit ñi ñëpp bëgg loolu laa focusu donc nag gis naa ne nit ñi ñi koy wax di ko wax di ko waxaat mënu ko daw. kon yow da jàpp ni laale bi ngeen laale moo tax da laa natt suñu waaw saa bu ñu tirage d'habitude dañ ñuy wax mënu ko moytu su ma fi nekkoon di wax noonu jàpp bàyyi kon dinañ man dinañ mën a tekki sa ngemb donc nit ñi ngi koy wax bu mu yàqoo ci man. promoteur mu ñëwoon du yàqoo ci yow. non non moom moom ak keneen ku ma war a bëreel sax. mais lan mooy daan Sa Thiès parce que tamit ku ko xam wax dëgg macha allah xam ne mbër bu am kàttan la mën na bëre te am na ginnaaw boo doon bëree ak moom fan ngay jaar fan fan. kenn du dem guerre di wax sa arme su ma ko du ma buñ cee yeggee fekkoon yegg nañ ci waaw boobaa dinaa ci xam lan la dinaa xam lan la te dinaa ko mën a. te combat bi du yàqoo ci yow. non du yàqoo ci man. Ama Baldé tamit donc ni nga doon tuddee Sa Thiès noonu nga ko doon tuddee. Ama dañu war a bëre Ama xoolal ay adversaire am tey jii mënuma ci génne mënuma ci génne donc nag lenn la fi am jël wala nga bañ jël mais Ama war nañu mën a bëri bu yàgg sax. moom doon na rêvé pour man xam naa ni Ama rêvé na pour bëre ak man. mais bi mu rêvé pour bi mu rêvé pour bëre ak yow est-ce ko. doxuñu ko non non doxuñu ko. Ah, mu nag yombul affaire man man yomb naa affaire. man ah man ko instant bi Ama laa fi ko sa bopp. non man yomb ma affaire loo ma rasooy ko baa jafe de. dafa mujjee nag seen koñ boobu. ah loolu mi sport la rek gars yi affaire koñ affaire rek comme noonu mu def noonu tam papa mu noonu na ko def noonu làmb la rek. ñi xam sport ñooy wax mais sport moom loo mën a def bu défaite ñëwee da ngay daanu bu victoire ñëwee da daan. ay yóbbante la yoo xamante ne gars yi ñoo ko yóbbante ci page Facebook bi ñu ne sa diggante ak Siteu combat boobu loo si wax. bon du ma daxuma kenn daxuma kenn athlète laa buy gis nga Papa Sow ak bi nekk fee ñoom laa fi bàyyi ak waa sama boy ñoom Gora Sow ak ñoom Franc gars yi ak sama waa équipe waa Grand jeex na à part moom ku ñu teg ma bëre ak yow. Garga Mbossé da ngay bëre kookan la garga xaw na fee caalit fan yële ci ginaaw bi avant muy bëree wax lu nekk donc pour man nag beneen yoon dina ko servir si bu bu dara bu metteetee comme ñu nu muy mettee nii ñu ànd ak suñu sang froid du dëgg waaw. mais bëri ak garga gënalu la. non bëri ak garga gënalu ma ndax dëkk bi. te am na ay booy yoo xam ay rakam yoo xam ni si ñooñu daal tey si ñooñu parce que ànd nañ te seq nañ quoi wax dëgg yàlla te gars yi dañuy wax nii rek mais làmb ku jël ku jël avance su nit déedéet mun loo wax ne sa la waaw parce que yéeneetuloo ko li nga ko yéene moom yore yaa ko xam waaw li mbër li gars yi di wax naan mbër balaa sant yàlla toog ci dënnu mbër naan sant naa yàlla julli seen sant sama ñaari waajur donc mooy loolu waaw. am na keneen koo xamante ne ñu doon commentaire wax nañ ko sa diggante ak Forza wax nañ ci. maa ngi fi comme ñëpp maa ngi fi maa ngi fi pour ñëpp ma suuf mais am na ne ñoo la ñoo xamante ne même soo waxee bëggoo leen tamit am na am na ñoo xam ne bu ñu leen bu ñu ñëwoon tey di la proposer par exemple benn benn benn benn lamine boo xamante ne defagul ci làmb dara. do am nga Forza laaj na ma laajaat ma Gora Sock laaj na ko gënalu ko n'est-ce pas man nag du ma Gora Sock du dëgg man athlète laa donc nag am na droit laaj ma man am naa droit tamit ne bàyyi ma fi kenn waaw. promoteur daal ku ñu démarré bu ñu juboo ak yow di nga bëri. man dinaa bëri.